bon maa ngi nii ak ki ñu def di def publicité Montréal c'est bon. Voilà, Gildas Khadim Hedman présente pour la première fois à Montréal, Canada, the Lord of the Senegalese and the Mbalax music, Wally. I'm ready. Montréal pour la première fois au Canada, Montréal, le septembre au Théâtre Berry sur la rue Saint-Denis. je suis avec le seigneur de la musique Wally ñaar Babacar ak Mor. ak Khadim ak Khadim. waaw vraiment vraiment kooku di leen charé di wax ni am on my way loolu la ñu wax noonu ah you on your way definitely yeah alright brother Papa Thione di hi à Edmond Babacar Diaw Khadim Gueye mes partenaires ñu ñooñu doom mm, ce sont mes qui sont dans le coup avec moi bon nag ils seront maa la ko wax Edmond Edmond Sadio uh-huh. Euh, Babacar Diawne. Edmond Sadio Babacar Diawne. ak Khadim Gueye. Khadim Gueye. yàpp. eh va bene. on arrive Montréal. ah. incha allah. nga ni. with the one and only the super duper. the untouchable the muscradle Papa Chor and Wally Seck. ñu ngi ñëw incha allah. ñu ngi ñëw incha allah. hi guys. bërë bërë bërë. am on my way waaye nag après Montréal la ñuy tere Montréal. Edmond Khadim Gueye Edmond Khadim Gueye Thiès. bërë. waale ngi dem voilà chers amis de Montréal Canada Vancouver Sherbrooke Québec City Ottawa on arrive avec Wally